Jag Ya, min nära. Ya, ya, min nära. Minta aja nanya-nanya. Saya plus. c'est le reste sur l'aéroport. Donc l'ARC, en plus de d'entraver la liberté d'aller et de revenir des citoyens, entrave maintenant la liberté du culte. Ah, non, l'autre n'est pas légal. C'est pas base. La Constitution dit que j'ai le droit de prier. La Constitution dit que j'ai le droit d'aller prier. Donc, un ordre ne peut pas violer la fonction et Le commandement ne tire sa légitimité que de la loi. Il n'y a pas de... En droit administratif, on parle d'ordre manifestement illégal. Ce n'est pas tout ordre qui est illégal. Donc quand on ordre est illégal, vous en tant que police vous avez le droit de l'exécuter. Ce n'est pas tout ordre qu'on exécute de manière normale. C'est manifestement illégal. Manifestement. Flagramment. C'est illégal. Mais je ne vous en veux pas, vous faites votre travail, c'était un moment de communication. Et c'est à cela que notre République est républicaine. Les victimes nous ont n'est-ce pas? ñu ngi leen di gërëm en tout cas wax ni Sénégal yëpp fii dara loolu jàpp ndax liggéey nañu yëpp je n'aurai pas de son quand ça va sortir mais di wax Sénégal yëpp su dee su ma xam donc kenn dañu war a dem en tant que jullit waaye nee nañu amuñu sañ-sañu dem julli ci moom loolu li ñuy firnde mooy dëkk bi tey liberté dem ak ñëw nga xam ne constitution ko may nañ ñu ko waaye liberté bi nga xam ne may nañ ko képp kuy Sénégal ci gëm-gëmam ngay chrétien ngay jullit wala ngay sax euh, euh, religion traditionnelle ñu ne la am nga droit euh, ci sa sa diine même liberté boobu xaj nañ ñu ko tey loolu laa waxtaan ak sëñ bi

Euh, beew gi ñu beew ci pouvoir moo leen lii lépp malheureusement il y a des agents qui sont travail et qui sont pas forcément d'accord et nous en sommes tous victimes tey àdduna yëpp àdduna yëpp gis na li xew lii mooy le régime de Macky Sall je vous remercie. jërëjëf jërëjëf. ñu jiite ci kër gi. nga xamante ne te nee na tey moo waroon jiite gi sax jumaa ji waaw xam nga bëgg mu ndax soo amuloon. wax ji du woon sax dëgg julli ji. Eh, ndax gis ngeen tey ni ma sañsee daanaka su ma demoon xam naa ne imaam bi day wàcc eh, jox ma jox ma ko

J'ai mon épouse qui dépose mon fils à l'école. Attendez. Oui. J'ai mon épouse. Mon fils a cours à 10 h au lycée. Oui. Avancez. ça, c'est mon épouse. Vous ne pouvez pas rentrer le Voilà. Maintenant, c'est la sortie. Il y a un de de le plus Voilà. Mon fils et sa pas on si président la son on a son fils. ah vous appelez Macky. président vous appelez Macky. vous a j'espère que vous n'appelez pas pour qu'il autorise la que ma famille puisse sortir. Hein? Monsieur

après je Je savoir de quoi, aujourd'hui, moi, citoyen sénégalais, game cycle. Merci beaucoup. Bravo les gars. C'est citoyen. C'est citoyen. micro bi génneel micro bi leen sant xam naa ni leen comprendre si yéen a gisandoo li xew ci réew mi mais li yëpp li ñuy firndeel mooy panique bi mana xam ne Macky Sall moom la nekk parce que lii rek doy na manifestation déjà waaye nekk nañu ci réewu droit ndax ab citoyen sénégalais boo xam ne amul benn interdiction bu ko frappé nga ne du génn këram amul sañ-sañu génn këram dem njabootam bu ñu waree gis ngeen dama obligé accompagner sama soxla ba fii léegi la sama euh, pon marché waaye dañoo bañ jàppale ko pour ñu dugal bagage loolu nag panique la rek parce que ku ñu ne da ngay manifester nga ne du ñu manifester xam ngeen lii ñu déployé tey ci ay ay moyens pour ne dañuy tere manifestation am bu ñu bàyyoon manifestation bi lu gën a néew loolu la leen di jaral waaye ñàkk gis-gis ak ñàkk xam-xam ak dëkkee ci panique. jox la réew ñu ne la defaral doxalal yoon doxaloo yoon ba mbir mi war laa dab nga affolé dinañ ñëwaat sax fani yi ci wax leen li tax Macky Sall tey mu tiit tiit gi mu tiit te mu jara ko bakkanam plutôt que ñàkk nguur gi parce que moom xam na li mu def dinañ leen ci jox ay firnde yu leer a leer mom ak ñu bëri ñu wër loolu mooy li xew Sénégal dafa jot nag sénégalais yi xam ni bu dee nañ ni ak voté ak dem urne moo fi jëlee Macky Sall dañuy nax suñu il faut ñu won Macky Sall ni Nous réew mi pas ko ci ay waajuram ni ko ko Nous won noonu lañ ko bëggé mu ko merci.